waaw ah, asalaamaaleykum nuyu nañ ne baax baax di leen siyaare di leen wax ngeen si youtube mag boobu di Diagne Efficace l'officiel waaw kay ñuy wax ni képp ñu may woo te jot ñu ma nañ ma bàyyi message ci numéro 76 bi 349 24 99 waaw kay tey moom bëgg nañu am lu ñu leeral tuuti rek ci wàllum transporteur yi waaw kay seeni mbir nag fi mu toll nii bay bañ jukki ndax état bee jàppale si seeni mbir joxe nañ fee nangami milliards joxe nañ fee nangami milliards mu dem ba coow la tàmbalee bari kenn ku ne jàpp ne fi mu toll nii ñee dañoo jël waa groupe dañoo jël ñee ñee amuñ te demeewul noonu buñ ci jugul nag ndax ay boromi kër lañ ay boromi kër lañ te fi mu toll nii toog nañ ay semaine fi mu toll nii def naa mi ngi ko bëgg xam ne kenn liggéeyu ci ñii bëgg a def ay semaines yoo xam ne kenn liggéeyu te fi mu toll nii nii dëkk bii ma gis nii nii fi jëm nii ci coowul Sonko leeg Adji Sarr transport réew mi fi mu toll nii Macky Sall daa jaxase réew mi ba fépp di problème réew mi ma gis nag bu ci yaay buñ ci defu jàmm kilifa dini teel ci jug maanaam ab famille bu fi nar a xeex boo xamante ni ñaanuñu ko yàlla fu duñ xam fu mu ardee fa jëm ndax jabalu si nañ kenn ko ci la muy yëngut jabalu si nañ ñoonu bu tayee borom jakartaay lañ jabalu si fee yaa nga fee jaaykatu ndékk yaa nga fee dem dem ba jabalu si nit ñi ci lépp lépp te lépp ni ñu ko waxee sànq rek ñëpp xam nañ ne mënuñu xeetu euh, infrastructure yi bu ñëw ñu ne Dakar la yem Dakar du du du Sénégal Sénégal yi képp nekkuñu Dakar loolu dañ kaa war xam yenn yenn accident yi ngi ci yenn réew yenn dëkk yi métti yëpp xool leen ko réew ma boobu tëli ba fa jëm jamonoy bàyyi nanga moo ko fa defaroon mu dem ba tëli ba sëñ bi maasoloog suuf sa ay kàmb nekk ca buñ fi defaroon maam xotti ay ay yoonu leer naññi xeex yooyu yëpp ak yooyu yëpp dina dañ ah yooyu yëpp looloo ko waral ah loolu dañ cee war a jug te dem defar ay ay ay xeeti tëri yooyu yëpp yi nga xam ne dañoo jëm ci ci ci ci dëkk yi nii ñu xot ci ay ay tëri yu baax du ko siifur comme ni ñu chiffré euh, autoroute bi bu ko defee xeet accident yi yëpp dafi mën a wàññeeku waaye fi mu doon nii gaa yaa ngi tëdd nii kenn waxu leen dara te ku nekk xam ne dëkku Macky Sall bi ku fi toog deux jours liggéeyoo sa carrière bi lépp yàqu te fi mu doon ne fooy mujj xeex la jëm fooy mujj réew mi day rëbbi tuuti ci kanam nii ndax fi mu doon nii te lépp Macky Sall ko fi indi wallahi bu gore woon day def na mu defoon 2012 ba mu taxawee ñëpp te Macky Sall li daa war am lu mu seetlu mooy ñii ko topp nii ñi topp ñi ñii nii daan ko na fi jugee moom ba mu soxlaa réew mi ñu toll nii sax jaayantuwuñu woon moo Macky Sall gu bëgg gu yem la ko Sénégal yi mos a bëgg comme Sénégal yi mosu ko bëgg bëgg gi jeex bëgg gu yem lañ même 2012 bi mu xëccoo Ablaye Wade Ablaye Wade dem ba xamante ni réew mi joxatuñ ko bopp ah te boobu sax Ablaye Wade demoon naa dem na ba Macky Sall deuxième tour teewul xam ne ne bu fa bu ko woon mu mën na caa am dara mais dafa dem ba xam ne ñii përiwuñ ba jox ko nit na am xam-xam am xam noonu lay def bu demee xam ne gis ne réew mi joxatuñ ko bopp day wëlbatiku ndax Macky Sall nii mu nii ñu ko def moment bi xamante ni seen yëpp dañ ko du muy kenn waxu jëm ci moom loolu da ca war a bàyyiwaat xel bu baax a baax xamante ni nit ñi pare nañ ci moom ku mel noonu jamono jii moom réew mi moo ko mën a seddal génn fii ndax am na yenn vidéo yi bëri yu ma waxoon daan ne deux mille dix-neuf bu defee bu amee deuxième mandat pare na ci Sénégal ndax kenn am na vidéo yu bëri yu mu ko wax léegi ne deux mille dix-neuf ba nga koy fay dafa dafa jàpp ne deux mille vingt-quatre du mës gée Macky Sall bu doon deux bu doon fii ak mille deux mille mille national boobu nga xam ne bu dundee deux mille mille googu dina egsi nu mu mënti def ne wàcc daa war a xalaat ci fi xaw naa ko ëppoon ak nguur fopp ëppoon ko bànneex fopp te mii ni ñee naan ma ngi ci ay veer rek xaw ma ay ba nga côté soo ak côté xaw ma fan léegi nag loolu ci bu ci xooloon di nga xamante ni nguur gu mën di doon ak fu mu mën di doon dina jeex na noppal Sénégal yi di xam ne bàyyi joxuñu ko bopp tey joxuñu ko bopp suba nañ xool ñu retari réew mi ku war a toog toog bu dee Sonko la ak ku doon mais moom ci jëmmi boppam nit ñee bëggatul mu toog léegi nag yu mel noonu boo xamee noonu yow yaay war a bañ a sonal sa bopp waaw kay jë wasalaam. waaw fi ma koy tëjee nag fi ma koy tëjee moo ci kaas si tax démb di diglu ci ah, interview bi mu def démb mais surtout day jaawale lim moom ci askan wi moom ak li askan wi moom ñoom seen bopp. da koy jaawale li nga xam yow da nga am ci askan wi ak li nga xam ne askan wi ko moom da yow surtout da ngay far di jaawale loolu askan wi. ñoom li ñuy jooy ñoo ko xam li ñuy xeex ñoo ko xam benn injustice bu ñu bëgg a taxawal bëgg a jàpp ak nit nat ko jaay ko doole ci ay tapale lu dul mu bañ a posé candidat ci képp nañ ko teg ku mel noonu nag réew mu am fulla ku ne te xam say droit ni nga ci jug jaayante lool même beneen réew boo demee ci yéen réew yu am fulla yëpp seen bopp noonu la ñuy def waa kay léegi nag yow da nit ki tamit da ngay da xam fi ngay yem nit dangay dangay da ngay xam fi ngay ni ngay doxali sa askan ndax mbër yu bëri dañuy jaawale maanaam mbër yi fi mu toll bëri na ci koñ yoo xamante nii mbëri bëri nañ ko ñu nekk yoo xam ne dañoo dem ba jàpp ne ñoom moom waa koñ ba dem ba jàpp ne lu luñ ne waaw waa koñ ba ne waaw déedéet ñoom su boo leen xoolee ñoom ak fans yi làmb moo leen boole ñoom bu jeexee dañuy jaar ni ñu jaar ne nit ñi dañuy siifur làmb di ko dund làmb boole ñoom ñaar bu bu ñu jotee ñu jàpp ne lañ ca man comme que seen noo nga jàpp ne leen waaye bu waa jàmb gën bëggee xeex yaa taxaw ne kenn du fi xeex déedéet boo ko waxee danay jaawale buñ bëggee xeex buñ bëggee naa nga yow moo leen tee def li nga def li nga man sensibiliser nga man waaw waaye nag boo demee ba jàmbale jàpp ne yaa moom waa jàmm gën wala ñaan la ay Cité kese wala yow kese boo nee ba jàpp ndox boo gàttee xet rek jigéen nit ñi ci ci lii ni ci li lay dugalee boo nee ba gàtt xet rek dañuy jéem ba dugal ci loo xamante ni yow da ci bopp daay dem ba rëccu loo doon loo doon duggee ci lii waaw kay kon ñaar yooyu la doon jaawale moom Cité day jaawale lim moom ak li askan wi moom ko ñu tàqale koo xam ne ñaar yooyu bokkut waaw kay ñaar yooyu nañ ko tàqale bokkut incha allah rabbi jërëjëf ah assalamualaikum warahmatullahi rahmatulahi taala wa ah sëñ Diagne te daa mel fekk na la sa bërëb mom gis nga de. ah wa li mom xana sangu fallu lay don lii daal waxuma la sangu fallu waye bayra la go xamanteni ni gu ànd ak ubbeeku goo xamante ni ak ubbeeku kaay. képp koo xamante ni. yoroo gu dëgër bu ci dug ah gis nga bo gisee ni tur tur tur sahaba yi ni lañ lañ lañ ko lañ ko tëjee gis nga. ah waaw ñeent turu saxaaba yi Ousmane. Abubakar Omar Ousmane Xali. mi bi dal képp koo xam ne ku dox ceeg falu. wala kuy dox ci mbir moo bëgg am ndam. waaw mi ngi nii. ah kii de xanaa kon sama sama mbokki commerçant yi moom yaakaar naa danañ ko itteewoo bu baax baax moom ñoo ko moom far yàlla ak képp kuy dox ci bépp mbir rek. Ah. ba man di doon pour yëngu. Hmm. waaw moo ko tax a jóg. ah bii de moom du ma génn sa kër gi te joxoo ma ko loolu moom du ma ko xalaat moom bul wax dara bul wax dara yow ñoo soo ci noppee it doo ma ko joxe noonu faaw nga boole ma ci kaaraange goo xamante ni si moom kaaraange yi ñu yor maam kenn yoru ko ci moom waaw ah, lu ah. lu ma waay lu ma waaye def mu këpp ci kawam te kenn du mën ci man dara kaaraange moom yi ñu ci yor maam dem si nii du ko yor ah sëñ Ndiaye sa këyit gi daa mel du li may gis lépp du li may gis donc tàllal ma xol du kan mel waaw ah, du kan mel yow eh, xaa bind nga ko fukki fan juróom moom bii kay ci un mois la bokk ñu doon bind un mois ci la bokk Sénégal tànnal kayit yi daa mel ni yëggagul ba tey de. kàmmel la kayitu kàmmel jërëjëf. càngat gu doy waar gaa ngi noonu càngat gi ci lépp lay dox ci lépp ji ngeen maam xeeti parfum yi andal, àndal rek juróom-ñaari xeeti parfum yi andal. àndal rek xeeti buur yi ya fi nekkoon te amoon doole ak ak xeeti nit ñi fi ne woon bëri sañ-sañ ci yooyu noonu lañ koy booleel gis ngeen gisee kenn fi ni fi na ba tey gis nga ko ay ñoom xeeti parfum yi mu ànd yi yëpp ngi nii kii ci Aïssa xeet yi nii moom lay ànd juróom-ñaari xeeti parfum yi mais cangat gu yéemee ngi nii bu doy waar day waar numéro bi 76 la 349 24 99 ku ma jot nga bàyyi na message WhatsApp gis nga lii la ñuy waxati dafa tar ñoo xam ne dañuy toll ci buntu ëtt ñu yàq seen carrière yàq ko ci lu ndaw waaw kay maanaam fekk maanaam ñu tane ca famille bañ nekk ñuy def leen ni def defa def defa bañ gën a yées ci senegal lii mooy di tàqale ak ñoom càngat la gu yéeme goo xamante ni sa la képp koo jigi maa mooy loolu lu mu fekk seeram da koy dégager loolu leen jigi baax baax incha allah. waaw ah, asalaamaaleykum ñu leen nuyu baax baax di ziare waaw ñu bëri dañ may fay di laaj ay loo awra bu gàtt ak yooyu lu koy waral waaw kay mii nii ñi képp koo xamante ni daa amee awra bu gàtt ñambi bi bii yow yaa xool ñam ba na bëgg mu toll ko ñu liggéeyal la dañ la ci bindal la ko. comme ni ni jox la li nga koy booleel nga jëfëndiko ko inshallah ya xam nu so bëgg sa aro toll bo wuté ñeem bu toll noonu ko toll ci carton yalla numéro bi nak 76 349 24 99 ku ma jotu nga bàyyi message whatsapp jërëjëf ok ñaami bàyyi non bi noonu wax ci ko aram gatt buñ ko toggé paré jëf ci ñu wara andal yépp safara yépp ni lay mel képp koo xamné jël nga ko yaay raw force course sama yu néewuti ci yow nak ko xass ba jël mom sama engagement mom paré na ci yow waaw wàllu woowu paré na ci baaxa baax wurna cheikhul khadim mi mang koy wat inshallah rabbi góor ñi néew kàttan reen bii nii waat naa ko ci yàlla képp duñ koy boole ñu koy liggéeyal képp ku ko jël bu dee sa soxna sa kër bàyyi la nekk xamal ne paa bi dana la génnee kër gi ne la bëgg a tas sama kër bu dee sa kër bopp nga yor bis boo ko jëlee boo fa fanaanee boo xëyee suba cinq heures cinq heures horaire bi bi du bàyyi say soxna lu leer laa wax dañ la jël kër gaa yi noonu sa kër demal sa yoon waaw liñ koy liggéeyee nag prix bi benn la benn la du maanaam ku ci woote ba naa lii lay jar amul wàññi la amul nangam boo gisee des na la coupé numéro bi 76 la 349 24 99 jërë ngeen jëf may laaj ba xam maam réew mi waaye ñu am la ñu lu ñu bëgg gi maam lii ak nomba la nomba la goo xamante ni maanaam ñaari gaw la maam nomba ñaari ñaari nomba lay doon goo xamante ni nomba gu ne ñeenti gaw lay def nomba gii nii képp ko bu àndee am moo ki sàngata may ànd képp koo xamante ni am ko téere buñ la mas a takkal suur ba nga juddoo toqantel ba boo neexee dindi ko barke maam Cheikh boo neexee dindi ko li wértu mooy képp ku lay fexeel wala képp koo xamante nii maam fa mu nekk dafa sonn ñu koy tegi coono ñu koy liggéey ñu koy sëfi liggéey li wértu wóor mooy nga bañ nga am bis boo ko amee ku la liggéey liggéey bi dool ci kawam day faatu ku bañ moo ñu waaj a naan onze heures dañ koy robeeg vingt ba a tokk ndomba nag su ngeen di gis nii bii lépp mooy cangat bi mooy cangat loxo sa yaram lépp lu mu fekk ci yow moo xam lu def def ba yàgg moo xam ba nga juddoo ba léegi naa gis koo xam ne bi mu tàmbalee liggéey gër yoon bu baax lañ koy liggéey ay mbiram yëpp arrêté wala ko tàmbali kër wala ko tàmbali benn mbir ba tàmbali cee réussir ñu def ko loo xam ne du defat dootu def dara bu jëlee kii moom lañ naan bombe atomique bi bii nii boo ko laaj lépp lu mu fekk sa yaram da koy da nii jaaru yaa ngi nii jaaro yi moom li wér sa wóor mooy assurément mu doy na waar yéen ñi nga xamante ni daal sëñ bi kenn jubbu leen amoo leen bayra amoo leen dara soof ñëpp mii ni jaaro bàyyi nii bii mooy dàqaleeg moom incha allah rabbi commande mi yi amoon nag daa jeex képp ku ci bëgg rek incha allah rabbi bu ñu dóog kiyee dañ ci ko defal commande yoo xamante ni mi ngi nii waaw la cay dem dem na ci waaw kay jërëjëf